Sénégal Liverpool ba foofule nga xam ne mooy Salzburg numéro 10 la fa doon sol ba Southampton waaye nag ba mu demee foofule nag dafa fekk nag beneen doomu Sénégal boo xam ne dafa nationalité foofule nga xam ne moom mooy sol foofule nga xam ni nag ba mu fa demee Sadio Mané ñu bari yaakaar ne Sané lee dina ko jox numéro 10 ba mujjul antu léegi nag officiel na Sadio Mané numéro bi lay sol foofule nga xam ne mooy Bayern Munich saison am di 17 la fa séenee sol foofu li nga xam ne moom mooy Bayern Munich loolu nag lu officiel la Imperfect TV dinañ ci ñëwaat ñu leen di ànd ak ñun di abonné te bés cloche fii la du fen